wante baax nañu taxaw seetlu xool ba xam bi nga fi nekkee ba léegi fan nga jëlee réew mi ak fan nga ko fas ne yóbbu laajte bi li ko wundu li ñuy tuddee état des lieux maanaam bi ngay soog di yegg si naka la keesu état bi meloon ndax permettre na leen lépp loo xam ne dafa nekkoon ci li ngeen mëbatoon ci réew mi ngeen mun kaa dérouler wala boog dafa jafe woon jafe na ndaxte gis nañu ne ci diirub ñaari weer def ngeen lu ñuy tuddee levée de fond ba am ay eurobond muy koppar bu ñëw dollee si ci dette bi nga xam ne boot bi nga xam ne réewum Sénégal def ko amale ndax loolu lu mu wund moom mooy ne fekku leen fi dara wala boog état des lieux. waaw ah, d'abord euh, damaa bëgg a préciser rek maanaam leeral ni lii ñuy def nii tey du pour def bilan ndax bu fekkee ne mandat cinq ans la te at wu nekk nu mu tuuti tuuti trois cent soixante cinq jours la. kon xanaa mën nañ jàpp ne man liñ ma appal mille huit cent vingt cinq jours la mille huit cent vingt cinq jours nag doo ci def cent jours nga ne maa ngi def bilan loolu c'est mais exercice la boo xam ne dafa am lu ko wundu te jaar na tamit leeral balaa may ñëw ci laaj bi nga laaj bi may dem France yàggul dafa am ay journalistes yu nekk bitim réew yu bëri yu demande defoon ay demande d'interview ma ne du dem sama première sortie ma di ko jox presse étrangère kon balaa may wax ak jawaa bitim réew bu dee askan wi laay waxal ma jaarale ko ci presse Sénégal ba pare mu wóor ma ne tamit feeg ak diir dinaa delluwaat te mën na am ñu defaat même sollicitation yi te mënoo dëkk dina déedéet déedéet ma ne kon jot na gannaaw bi ma fi tooree trois mois parce que man ñetti weer sax laa jàpp na laa def man nekkuma ci bilan cent jours deux cent jours trois cent jours maa ngi ci def naa ñetti weer diggante bi jot nañoo xool am lu ñu gis am lu ñu nekk di saytuwaat am na jot app bi jot na pour ñu mën a toog ak presse sénégalais yi à travers ñoom ñu wax sénégalais yi effectivement fii lañ jëlee réew mi jéego yi jot nañ ko def waaye loo gis rek lii moo ko waral pour sénégalais yi gën a mën a comprendre suñu démarche gën ñoo mën a gunge bi ma ñëwee biñ ma falee déjà ma am avant may prêter serment laa commencé xool fan laay jëlee réew mi première chose bi ma def boobu maa ngi hôtel Azalay dafa am ñi ma ñoo xamante ne ay sénégalais lañ ma yàgg di leen suivre woolu leen ci seen xalaat laaj leen naka la ñu gisee situation bi ñu wax ma seen xalaat ma commencé saytu ba xam ndax réew mi may jël lii ay stock de sécurité ci wàllu lekk li approvisionnement ci wàllu carburant pour courant ak leneen ak leneen loo xamante ne mën na jàmp fan lañ ci toll bi ma commencé def exercice boobu am na li ma gis lu ma jaaxaloon loo xamante ne buñ ci bàyyi woon xel xëy na mënoon nañ avancer tuuti rek ñu ne coupure commencé na parce que saar amatul approvisionnement parce que fekk nañ fi loo xam ne ci wàllu wax dëgg yàlla doyoon na waar waaye xel na xel boobu ñu am ci njëlbeen xool ci secteur sensible yi fan lañ ci toll wax woo direct DG SAR bi mu ñëw ñu waxtaan ak moom mu am lu ñu wax woo DG Sénélec woo directeur du commerce intérieur woo ñeneen ak ñeneen ci biir administration bi ancien ministre du budget woo ñeneen togg ak waa FMI woo ñëpp ci lañ xam ne situation bi ñu fekk nii xaw na doy waar trop trop trop trop pour dire le moins waaye tax na tamit ñu gaawantu jël suñu matuwaay ba bato bi nga xamante ne defoon na fi weer mënul décharger parce que fayuñu ko woon ci saar ñu defi pexe ba bateau boobu ñu fay ko ba beneen ñëw ci gannaaw ñu fay ko pour ñu mën a assurer approvisionnement wu SAR ak hydrocarbure mu wóor ñu ne tamit duñ toog weer rek courant coupé. ñu fekk tamit ay yeneen mbir yu doon nit ñu doon gaawantu di def parce que xam nañ ñu ngi dem ma jël ci misaal rek xëy na dinañ ci egg ndox nit mën na. bàyyi lu ne ba mu des ndox ñu ñëw le vingt neuf mars ma fekk sama prédécesseur ki ma fi bàyyi ki ma fi wuutu ñu mu àndal signe arrêté pour yokk ndox mi le vingt neuf mars kon dama doon toog rek facture yi facture yi naaw ñu ne ñii la fekk ne ñoom ñoo ko signé ma gisaat ay contrat yoo xam ne surtout ci biir liggéeyu hôpitaux yi dafa am contrat yu ñuy doon baral boobu dafa guma sax prestation de serment ci la woole ministre de la santé de l'époque ne ko contrat tel tel tel buñ ko signé contrat boobu ñu taxawee ko te li ma ci gisoon ci ay surfacturation bu ñu leen waxee ngeen ja ngeen yaakaar ne sax loolu mënta nekk biir Sénégal ba tey dañoo bloqué lépp luy contrat ci wàllum santé yi nga xamante ne commencé wuñ woon di ko exécuter parce que fi ñuy egg ci surfacturation c'est inacceptable ba ma ñëwee seet si sama euh, ki ma fi wuutu ñu nekk di visite bi ñu toogee ci jeudi boobu ma ne ko gis naa ne ñu ngi def benn convention boo xam ne convention la ak Dakar na fekk ne signé woon nañu vingt cinq ans avant mais convention bi arrive expiration ñu gaawantu war ko joxewaat vingt ans plus tard pour les vingt vingt prochaines années ma gis na nu ñu ko tëggee le intérêt wu Sénégal yi ça n'a pas été préservé mu ne leen bàyyi leen ko kase leen loolu defaat leen un nouvel appel d'offre pour mu wóor ñu ne que les intérêts du Sénégal sont pris en compte te bés bu ñu ko defee ba pare ngeen gëm-gëmale ko convention bu ñu arrêté ak bu ñu am di ngeen xam ne intérêt Sénégal préservé nañu ko ñun par rapport déjà réalité finance publique Sénégal dañ ci njàgg am doute ak certitude ne am na lu ñu waroon càmbar ci biir dès 2018 suñu parti dafa bindoon ministre des finance bind FMI bind banque mondiale ne leen ni ñu gisee ñu saytoo finance publique Sénégal suñu xel dalu ci te bu ñu ñëwee ba toog effectivement fekk nañ situation boo xam ne xëy na mënoon nañ ko gën a saytu mu gën a sell gën a set ci réew mi donc évidemment mënoon na am jafe-jafe ci lu gaaw surtout que pendant ñu doon def loolu am ay jafe-jafe ñu ngi doon signe ay ay yeneen ay yeneen décret pour que ancien ministre ñu kon ñu am li ñu leen di fay signé ay yeneen décret pour ce qui de d'autres travailleurs d'autres secteurs di jël engagement yoo xam ne état mosu koo nangoo jël mu jékki-jékki yéwén ci mu doon loo xam dañ ko ñëw ñëw rek fekk ko suñu mu suñu kaw te te du ñoon ñoo ko jël surtout que ñun ñooy ñoo nar doxal am responsabilité cinq prochaines années loolu ànd ak environnement boo xam ne nag boo seetloo déjà sur le plan conjoncture internationale nit ñaa ngi subir les effets de la crise Covid-19 ba tey di subir effet wu guerre Ukraine ñu ne deetuwaay mu am une guerre au Moyen-Orient boo xamante ne xamuñu fan lañuy fan lay mujj kon évidemment conjoncture internationale c'est une conjoncture très difficile dëkk bi tamit nekkul na da lépp daf fi amoon jàmm rek ñëpp di liggéey ni ñu war a liggéey ku ne xam na de deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre bi bi bi may Sénégal di jox lenge mais coow ak jafe-jafe amoon na Sénégal à telle enseigne que liggéey gi xawoon na lompoñ kon li nga xamante ne ci liggéey googu lay jële jóge nguur gi di ci am koom di ci mën a jële xaalis di ci liggéey évidemment liggéey boobu xawoon na sooxe kon surtout les plans les indicateurs étaient presque au rouge wala boog à l'orange loolu la ñu jëlee réew mi mais alhamdulilah taxawaayu askanu Sénégal ak même leader politique yi nga xamante ne dès vingt deux heures ba minuit presque ñoom ñëpp félicité félicité nañ ma ni nit ñi ragalee ragalee bitim réew xam na ne que ce peuple là mérite d'être soutenu kon am nañu crédibilité boo xam ne malgré conjoncture bu metti malgré malgré situation yu bëri continué nañu dañu def confiance ba Sénégal mën a def loolu ñu am tamit ay ministres yoo xamante ne xam nañu seen liggéey notamment ci wàllu finance ak wàllu coopération ak ñi nga xamante ne jël nañu leen ci domaine boo xam ne mën nañoo wone yoon wi. yaa ko waxal sa bopp da nga fay fekk benn situation bi nga xam ni day na waar suñ la suñ la déggee et pourtant dañoo toog.